Basuma Basuma Mbare Là, je lance un à tous les panafricains qui sont dans les réseaux sociaux, dans les télés, dans les radios partout, de dire que la CEDEAO, le corps diplomatique, des États de l'Afrique occidentale française vient de déclarer la guerre à toute l'Afrique et aux peuples africains. D'abord, ils étaient en guerre d'abord. Tu ne pas sanctionner un peuple, une population, et puis vouloir leur parler, non. Tu ne peux pas, quand la France décide de faire certaines choses, il y a des présidents Renoir Black qui vont le supporter dans ses dérives et ses délires. Africains, africaines, il faut qu'on Il faut qu'on se réveille. Là, les autorités nigériennes et la population du Niger ont besoin de notre soutien, nous tous, sans exception. Nous tous sans exception. la où les Antillais ont commencé à nous supporter, l'Amérique noire a commencé à nous supporter, pas l'Amérique occidentale. L'Amérique noire a commencé à nous supporter. Comment on a toujours des dirigeants qui se prennent comme des esclaves Comment Comment on peut avoir toujours ça Mais cette guerre-là, comme je l'avais dit au départ, ça sera entre nous. La vraie guerre se passe en Ukraine. Là où la France est abandonnée par tous ses frères euh, européens, là où cette mouvance révolutionnaire africaine est en train de tout reprendre l'Afrique en main, là où le système veut s'en débarrasser des vrais Africains et de nous mettre les lâches des imbéciles des traites. Pourquoi je ne rentre pas sur les dé détails techniques Il les autres lives, Papa Malien, Papa ñaami qui rentrent dans les détails, l'uranium, ça se gère comme ça, ça vole. Moi, je rentre juste sur le plan de la guerre. Et cette guerre-là, je vous le dis, je vous le redis, va coûter cher au Sénégal. D'abord, vous, la jeunesse. Demain, on vous lance un appel solennel. Au Sénégal, vous avez deux problèmes à gérer. D'abord, la libération de Ousmane Sonko et de tous les détenus politiques. Deuxièmement, l'armée sénégalaise ne doit pas intervenir. Quel que soit le prix à payer, il y a des officiers qui ont déjà refusé. Et pourquoi Macky Sall veut aller sur cette guerre S'il va en guerre, il reporte les élections. S'il va en guerre, il reporte les élections. Tous les militaires pro-Sonko, tous les militaires qui respectent leur grade, tous les militaires qui respectent la tenue, vont aller au front. Et aujourd'hui, comme je suis plus calme, je reviens dans les détails. Sénégalais, Sénégalaises, demain, il faut sortir dans toutes les rues de Dakar. Si vous sortez, on va vous soutenir sur le plan logistique. Demain, on doit libérer son corps de force ou de grève. lenn rek ma xaw a métti au départ nee naa leen combat bi du ay avocat Ousmane Sonko ce n'est pas les marabouts Ce n'est pas l'armée, ce n'est la gendarmerie, ce n'est pas la police, mais c'est la jeunesse. ñoo war a xeex xeex bu ñu bëggee jël nag ku nekk di jiñ sa borom responsabilité militaire yi naan booy yi ay góor jigéen lañu bu ñu xeexoon tuuti ñun ñu naan militaire yi ay góor jigéen lañ ñeneen ñi jël ko teg ko ci saaga ndey sëriñ si. waaw ndax ñoom tam am nañu seen poids te ñoom seen pois dañu far bu leen neexee far loolu laa leen waxoon ne politique dafa pluriel bu leen neexee far mais far ci luy développer Sénégal moo gën far sa poche. complot bu rëy les portables ont parlé mais yéen portable Sonko bu ñu leen naan wax na est-ce que ba tey génnal nañ leen message bu wax. est-ce que génnal nañ leen benn message boo xam ne nee nañ leen lii portable Sonko moo ko wax amagul de. di ngeen dégg nag ndax foog ngeen dégg aha foog ngeen di dégg chaque jour ma wax ko <laughs> ku munul muñ di nga génn si combat bi ku munul muñ di nga dee nee nañ Sonko portable am bi nee na dogoon wax ak Prigozhin xaw ma <laughs> maanaam en grosso modo état sénégalais force occulte yi Assimi ko bëgg a jiiñ mais ñemewul jaar ci wax ca affaire russe yooyu yëpp ça ne nous intéresse pas ay Sonko dogoon wax ak les Russes dogoon préparé dugal fi Wagner rek mais Wagner c'est légion étrangère comme la France a sa propre légion étrangère. Si, si, si, Wagner, c'est une légion étrangère. Mais comme que c'est russe, l'ex-Union soviétique avait une légion étrangère. Espagne, il a une légion étrangère. Si, il a des légions étrangères. Mais la France, elle a... <laughs> Mais les militaires qui sont en Afrique là, mais ce pas des militaires français, ce sont des légionnaires. Ce sont des militaires mixtes, mais ce pas des français. C'est pour ça que s'ils meurent, ils perdent. En connaissance de cause, comme dans le Maïwa. Sonko nag ak gars yi di wax kii ci sëriñ yi yooyu yëpp nañ ko génnee gaay ñun ñoo war a wàcc ci tali bi temps yi calme bi nee na tekk dëkk bi nee na tekk lépp nee na selaw booleen leen xamoon ne gañ ngeen ba pare dañuy concrétiser combat bi boo leen xamoon fi ngeen toll si combat bi dañ koy concrétiser balaa xeex di déclencher ndax bu xeex déclencher waaw des secrets typiquement militaires pour lan ñu naan leen combat bi yéen la jeunesse boo lu ñu tëjalee bari ñu ñu ñu nokk Macky Sall jëlee ko palais léegi tey wax day farankulaay armée sénégalaise bés bu frappe jógee foofu dem xeex ak Sénégal dafa yomb gis ngeen Sénégal gis ngeen point yi ñuy def ci tali yi boo leen dem Fuuta gis ngeen point yu bëri yooyu dëkk yi jib frontière gis ngeen point yu bëri yooyu xam nga point yooyu pour lan la pour wan leen bu ñuy defar dëkk tubaab nu mu tasee Afrique point yooyu pour guerre la capital booy dugg dafa am guerre Bargny am na non am na pont Bargny am na pont no Macky Sall Sénégal dafa yomb neutraliser si xeex frappe aéroport Léopold Sédar Senghor deuxième frappe xam nga fu muy doon bat bat arti wakkaam bu ñu frappé fële aéroport Blaise Diagne deuxième frappe yi xam nga fu muy doon géniman yi lay doon bat Bargny lay doon bat jeunes yi lay doon buñ dooree ñaari camp yi explosé pont wu Bargny explosé pont wu Tëngéej nokk Macky Sall comme ndox lay nekk te loolu suñu gàcce lay doon guerre bi da ngeen yaakaar ne Niger la ñuy xeexali te Macky Sall bëgg a xeex ak Assimi Goïta billahi ñu ngi leen naan génn leen marché am ñu ko def vente aux enchères non si si si am na groupe yoo xam dañ lay woo nga yónni leen ñu aju dal na ma bii passé da nga yónnee groupe ndeke booy yi du wàcc ci terrain am na booy yoo xam dañ naan loo may fay parce que dañ leen di fay su suuf ndekete si si si l'État est en train de payer des jeunes pour bu ñu wàcc xeex moment bi booy yu am conviction dëgg ñooy xeex moo tax bu ma déggee gars yi ne saaga booy yi damay tiit parce que état dafa génne les gros moyens dëgg neex yàlla dafa génne les gros moyens pour le cas Barthélémy Diaz mënuma ci wax parce que lii yëpp je vous avais averti lii yëpp vidéo naa ko Barth fii la jëm ak yéen Barth nii lay def Barth nii lay def ñenn ñi di wax rek grand bi day yàqu combat bi Macky Sall lay liggéeyal pyromane la waa léegi pyromane buy nekk ci règle di leen wax fi ngeen jëm di leen wax si règlement bi nag di yàgg si ngeen ni ko gis mu am ñuy toog naan leen mënuñu woon gëm lii est-ce que loolu c'est logique si réew ñu ne lii mënuñu ko gëm état sañul def lii te ñun ñu jël doole yëpp jox ko état doole boobu ñun ñu ko jox yéen jeunesse bi yéen a ko mun jëlaat. Barthélemy jaas kenn du ma ci wax loo ndax biñ ne yeewi ma jóg yuuxu ne way yaay yooyu maa bañ yéen ñëpp a ma mere kenn mënu ma ci wax loo semaine passée lan laa leen wax Abbas Fall dañ koy wekki teg fële mu wax lépp lu bokk Pastef Barthélemy Diaz mooy njëkk appliqué texte yi parce que moom. mairie moment bi lay jëndee ko waa Pastef dëgg neex yàlla. léegi nag cour suprême nag décision Barthélemy Dias bi dina génn ñu acquitté ko ba mu set deful dara Ndiaga Diouf bu ko deful woon dañuy toj lu bonam kenn du xam secret yëpp saa yi ñit di wax di reewantu ndekete au fond de lui ndeysaan il n'est pas à mais foog mu wax ndax bu bu la sa maam defee métis nga métissé rek ñu la neex ngay mel moo tax yenn xeet yi du ma wax ak ñoom cottu day mu leen comme ma dans la tip Barthélemy Diaz piège yi ñu tegal Sonko yëpp lal bi bi ñuy dugg ak bu ñu gagné ni ñu Sonko lancé waat xam nga objectif Khalifa Sall lan la woon Khalifa Sall Dakar la yemoon il sait ça il fallait que mu dugg Ousmane Sonko pour waa Sénégal xam ko xam xàmmee ko boo ko waxee waa kër ñu ne la grand bi MFDC la bokk lii moo yàq seen combat boo ko waxee yenn booy yi Pastef ñu foog ne poste nga fay wut si commencé la xoj man su ma doon wut si poste nga njëmb Touré moment yi biñ ko ne prip bi ma ne nga njëmb rek dama sentir am na ñu ko commencé mbëkk ci biir parti bi moo tax ma teel ko annoncé ne leen ku ko mbëkk ma mbëkk la booy boobu moom ku ko mbëkk ma mbëkk la dakaar fi ñu toll si combat bi Sonko moo ko fa tollale réew am na fu muy toll askan fam la am am na fu muy toll xeex ay jàpp ak julli du ko régler ay jàpp ak julli ko régler de te li ma leen waxoon rek xeex ngeen ñun suul nañu ñoom nanguwuñu sulli ji ba pare nañu pour fay deux milliards pour kuy sulli ji bu kenn dem foofu xorom poobar bi ngeen wis si mbedd bi xam nga loolu pour lan la woon coow yi ci biir kër yi lay des seetlu leen temps yi kër yëpp a toj xeexoo bi Sonko Macky sàll coow yaa ngi ci biir kër yi kër yëpp a toj fu mu toll nii xeexoo baa ngi ci biir kër yi au mu nekk ci mbedd moo taxoon ma ne leen wut leen suufu cimetière kenn du suul nit ci biir kër moo tax Sénégal boo koy wax da koy wax lu muy dégg mu dul dégg di ko nuancé amul xorom gi ak poobar gi ngeen wisoon si dëkk bépp moo tax coow yëpp dellu seen biir kër yi ngeen di xeexoo seen biir kër yi au ngeen génn si mbedd bi xeex suufu cimetière bi gis ngeen nu mu simple noo kan moo ñemee suul ci biir kër ak lu sa baay am xaalis ak loo bëgg sa jabar kan moo ko ñemee suul ci biir néeg dëkk moom kenn ci yéen wutal leen mu suufu cimetière ku bañ des si lii. affaire bi du ay jàpp ak julee koy gérer de ay ay dama am jàpp boo amee jàpp gars yi nagamal la fi ñu jaar ba nagamal la nak yi ñu dóor le jeudi vendredi balaa ñuy jàpp ba nagamal la ñun lu ñu suul lu ñu xaar ñoom ñu am fitu dem suuli ji kese te ñoom bañ nañu dem. pare nañ ne pour fay xaalis pour ñu sulli ji mais duñ ko sulli boo leen ko sulliwul tam yéenay neewi ku ci dee yaa perte sulli perte sulliwul fa kenn faat xam ngeen li may wax bu dee man it yàlla na ma yàlla jël ndax man ma loolu bu dee pour sauver Sonko ragaluma loolu piège yi nag yegg si nu suba foog combat gars yi booy Atman Diagne lancé na appel xam naa ngañ Demba Touré dina wax après fokk yéen ñëpp wàcc ci tali bi ñu xeexaat ñu xeexaat pour génnee Ousmane Sonko mu ngi si oxygène gis nga boo leen déggee ni waxatuñ ci ah dañoo maar ndax waa am na fu mu toll ni médecin am du ci mën dara réanimation la jëm tey tey tey soo moytu dañ koy réanimer Sonko waruñoo gën gore man démb wax naa leen lu muy risqué yëpp ci grève de la faim bi non wax naa leen lu muy risqué yëpp d'abord question de pois am boo ko gisee da ngay jooy wax naa leen lu muy risqué yëpp jaayante bi nag foog ñu libere ko par force par force de force ou de gré de force ou de gré blessé On vous demande une dernière fois le sens du sacrifice da ngeen di xeexaat de foog ngeen génn xeexaat amul blessé amul dara contrat bi day mat Sonko mu ngi tëdd xiif ñun waa Casamance da ngeen di génn xeexaat y' a pas de blessé y' pas de mort même mort yi bu ñu leen mënoon réveiller nii jiital leen fop leen nekk ci terrain bi xeex ko dañ koy def. waa Dakar yéen rek lañuy ñuy un appel solennel demain tey si guddi. soo leen ko mënee commencé sax tey si guddi def ay veillée de prière taal fépp fa def ay veillée de prière pour dàq seytaane dina si baax de tey dakaar rek tey boo leen mënoon tàkkal fépp sànq si ngoon rek am na waaw yenn secteurs yi commencé kot tey loolooy tey seen cuur ay seytaane foo leen taal fa booy dinañ ñëw am lu ñu leen fa sottil pour dàq galaat yi loo leen gën a taal ngeen gën a séparé wu sinon yaa ngi ni pare màggal gi gis nga boo leen yi dof daflu màggal gi ñu ñu pare xam nga murit gi xeex lañ jël bu sëñ Modou Kara war yóbbu ba Baye Fall gi war yóbbu renfort ba ren dinañ mettre en mal wala mettre humilier tey jeunes yu bëri dinañ leen humilier Touba surtout vous les jeunes patriotes moo tax préparez bu en conséquence balaa ngeen dem nag ñu leen di toroxal wala ngeen di tekki seen Sonko seen lépp wane seen ñàkkum gëm seen réew ak seen conviction Dakar ñun ñu ngi préparer loo xam ne màggal xam nga ne ngeen ne ñu dóor noo dëkk bi jàmm fi nekk di ngeen xam ne Macky Sall mooy doomu gëmu dóor gëmmal boobu ci violence ngay gaañee yaayam foog ne góor nga ndax jigéen bi wonku na déedéet jigéen da nga koy tàngal doog a dóor mais doo gëmu dóor ñun duñu ay sadik mais Touba li ngeen ñuy préparé dinañ ko ñëw liir lépp teg ko sur la table paralyser dëkk bi kenn du màggali comme bu ñu màggalee ngeen jàpp ñu kaso tëj bu ñu màggalee ngeen jël ñu defeere balaa boobu nag ñun tam ñu téye dëkk bi kenn du dem màggal yi les jeunes yéen a ci des foog paralysé demee moom journée chemin est payé Macky Sall moo koy fay par force c'est l'état qui va payer par force le travail c'est le travail après le travail y a que la mort qui arrive rien d'autre que la mort dund xeex dee xeexul dee bëgg xeex bañ xeex suba am na ñoo xam ñu ngi dutewu naan booy yi dañuy lekk seen xaalis si terrain bi booy yi lii loolu je le mais ñu nit xam nañ fu ñuy teg suñuy tànk ay blessé la ñuy fajat ay booy yi ñu jox lekk mais suba di ngeen am surprise wala tey di ngeen am surprise ñun dañuy xeex xam nga man di xeexantu dina bunt comme ñoom li ñuy def déedéet Ousmane Diagne lancé na appel nga Demba Touré génnal wax dañuy xeex demain on va se battre par force pour la libération de Sonko avant qu'il ne soit trop tard médecins yi au bout des seize jours même buñ ko récupérer day bàyyi ay séquelles au bout de seize jours kooku ab médecin réel moo ma ko wax moo ne ma waxal loolu ñoom bés bu ñu ko récup au bout de seize jours bu ñu ko récupéré wul pour le récupérer ça sera d' autres problèmes jeunesse bi yéen a si des ñu libéré Sonko libéré détenu politique yi génn manifester ne suñu armée du dem guerre contre ay africains Macky Sall bu bëggee guerre na simbeeku soltenem solal Marème Faye Sall ñoom Mansour Faye ñoom Farba Ngom ñoom Bougazeli ak jeunes yi nii corrompre ñu ànd ak ñoom dem xeexi mais pas ñun l'Afrique ne va pas combattre cette guerre là comme ni leen ko waxee woon rek ñu bëri dañ may bind fii messenger numéro bi numéro bi gars yi man maa dul jàpp numéro moo tax gis nga su ma xasee ne 06 05 59 96 00 numéro bi France la donc 0033 loolu la ma ñëpp doon laaj fokk raag de moom mooy c'est trop tard yéen samedi yéen Sénégal suba boo leen ko assuré ñun samedi ñu assuré ko avec ou sans l'autorisation du préfet sànq lañ ma woo ne ma préfet mu ngi xaan-xaani ne demee dañuy xaar ba population africaine comme la CEDEAO vous rentrez en guerre avec la France je vous lance un appel solennel burkinabé malien niger nigérien ivoirien sénégalais je vous lance un appel solennel le samedi à 13h à la place de la République sortons ensemble dire non à cette manipulation et cette mascarade néocolon on ne veut plus ça On ne veut plus de cette guerre. Nous, on veut une Afrique libre, une Afrique africaine par l'Afrique, pour les Africains. Mais pas une Afrique dirigée par Emmanuel. Abou Bakar El Macron, le grand djihadiste de tous les temps. Fils de pute.